Assalamu alaikum amis internautes, assalamu alaikum, yenni suivre KBMR TV bienvenue sur Actu Navetan, votre rendez-vous incontournable sur KBMR TV et voilà nous sommes fiers de vous présenter Actu Navetan, résumé du 30 août Euh, au stade docteur Issa Mbaye Samb tey jii la woon doxoon ci diggante ay c guy gi ay ASC Jàppo première heure bi 18h jotee la ñu siffler coup d'envoi bi waaye nag euh, ñu fubale 45 minutes de jeu ndam demul ndam dikkul ci diggante guy gi ak Jàppo euh, waaye bi ñu demee ci vestiaire yi ñëwaat ci la ay ASC Jàppo retrouver file yi daal di koy dugal benn ball maxi bi nekk ñoon lañu ko fubale ba mu jeex ASC Jàppo mo dan ASC Guigui, ben bal ci dara dor ko 1-0 dadi waye nak nag Jàppo moy remporter tête euh, pour le baby, nek ci kaw naka noonu ba match bi jeexee ñu déglu réaction coach su Diapo et Godard, donc c'est le coach d'Oudouba, le coach de l'AS Diapo, qui lors de sa première journée donc s'est imposé face à Dego sur le score d'un but à zéro. Aujourd'hui donc il revient en cette cinquième journée aussi pour s'imposer face à l'AS Guigui encore un but à zéro. Cela doit faire donc la fierté du coach Godard. Alors Godard donc euh, ce euh, comportement joueur est exactement euh, donc les gars maintenant on a une satisfaction. Ah, merci merci Didier, je match bi mom en premier mi-temps ku nek gis nañu bon jàpp amna difficulté amna difficulté ci premier mi-temps bi on a fait une très mauvais premier mi-temps mais bi duggé ci biir vestiaire yi bon ñu tok waxtaan rectifier yenn affaire yi bi duggé duggee bi duggaté gis ngeen affaire yi ni mu démé parce que donc affaire yi mom patience rek laaj parce que guuy gi dañ tassé ñaar yoon ñu dóor leen ñaar yoon parce que tay tamit ni ñu ñëwé aussi ñoom ñom ñu ñëwé aussi c'est normal ñëw nañ en premier mi-temps mom match bi ñakanté ko ñun gagné duel yëpp malgré que ñom dugaluñu mais ñun bi duggé en deuxième mi-temps

bon démérité wuñ nag maa ngi lay ñaanal prochain match yàlla defal leen ndam ñu am beneen victoire. merci merci coach Godard. merci. mi ngi noonu mu nekkoon réaction coach su AIC Jàppo waaye tamit dañuy déglu réaction coach su AIC Guy gi ginnaaw bi mu amee ndam ci matcham bu njëkk tey mu ñëw am défaite naka la. gisee match bi ak analyse yi mu ci def. avec le coach Baye Moussa Ndiaye le coach de l'ASC Gouye qui vient de s'incliner face à l'ASC Diapo sur le score d'un but à zéro coach metti woon donc finalement Diapo dali djel jël ndam li un but à zéro donc vraiment lan mo sa yëg-yëg sa prestation euh, joueur yi tey. donc Aldo mang lay nuyu ba paré di nuyu euh, waa rajo bi yëpp macha allah euh, donc comme ni nga ko waxee rek ñepp gis nañ match bi ni mu démé donc ñew nañ ñen waron ñëwee presque bo xolé premier mi-temps bi ñoko ko yaakaaroon naa ne sax bu ñëwee deuxième mi bi donc dañuy gën a yokkaat pour mu dem mais nag donc nii la ko nii la ko yàlla tudde woon am nañ fi benn penalty gis nga arbitre bi tiré ko mais loolu tamit dañuy xam ne rek ci football la bokk ci sport la bokk ñu comprendre ko mais en daal joueurs moom ñëw nañ leen war a ñëwee nañu war a footballé donc yàlla may na leen ndam donc dañ leen di féliciter joueurs dañuy féliciter équipe bi di encourager joueurs ma macha allah. alors sa euh, deuxième match donc déjà nga marqué 3 points il te faut combien de points pour mën a génne donc sa poule bi normalement. waaw donc comme ni ma la waxoon rek ñun ci liggéey la nekk ba léegi donc lii du ñu tax a décourager dañuy ñëw dëkkandoo la ñu amaat donc ñëwaat def nañ defoon bu njëkk rek génnaat ci 3 points yi. man nga jël pee man nañ dañuy jël pee sax incha allah rabbi merci coach ok merci. macha allah mu nekkoon euh, réaction coach ASC Gouye Gui loolu moo doonoon match première heure bi waaye tamit bi 20 heures jotee la ñu siffle deuxième match bi coup d'envoi bi doxoon ci diggante ASC dëkkandoo ASC matt gi waaye tamit ndam demul ndam dikkul ñoom ñaar dañoo témboo kenn ku ci nekk dugalul sa morom dara zéro but partout la ñu def dañuy dem déglu réaction coach su ASC Dëkkandoo. Makhtar c'est donc en tant que coach de de Kendo celui-là qui a fait donc euh, les beaux temps bien sûr de de Dego. donc euh, un très bon footballeur aujourd'hui donc on le retrouve euh, bien sûr en sa qualité de coach d'entraîneur de de Kendo. alors c'est ta première sortie donc Moïse sa génn C'est cinquième journée donc nga façon avec l'ASC Matigidef zéro but partout. Alors donc là, par rapport à la prestation donc euh, euh, de tes joueurs euh, est-ce que résultat bien donc gënal na la. oui résultat gagné si match quoi mais j'espère que xëy na nous la ko Nous mais damay Nous gën dem nous sama prochaine match pour am quoi. j'espère que match de football ñu place de défendre tous les temps quoi mais ay see dëkkandoo ñoom ñu ngi dox sen kaw mais ñoom ñoo am nañ ay occasion yu bari yo xamni ni danoo raté waaye raté nañ occasion amna nañ penalty raté j'espère que ñun jàppoon nañu match bi ñu ñoko mom et puis sax ñu ñoko mom wa ah, xeyna nak peut-être non la ko yalla euh, tuddee alhamdulilah ñi ngi sant yalla bu baax baax peut-être mo ñu gënal tamit défaite la en tout cas ñu joxante rendez-vous pour sa prochaine sortie inshallah wa inshallah amul benn problème mm-hmm. j'espère que yalla ñu yalla défal jamm défal ko ñëpp ci ci. ci ci mois bi nga xam ne bu soobee yàlla suñ prochain marché prochain marché dinañ mën a ñëw pour pour pour pour. waaw si. waaw li muy fay bi mooy sama attaque sama 9 point li muy hors-jeu dafa bëri. li muy hors bu bëri am na hors-jeu yoo xam ñu ngi koy tiré am na hors-jeu am na yoo xam amul. parce que nag ñun am na loo xam tamit waa zone war nañ ci ko xoolaat parce que ñun mënuñu ñëw di préparer nawetaan luy bëree bëree bëri après ay arbitre yoo xam ne tey doo lay indil wala doo xam loo xam ne lay arbitrer lan la quoi j'espère que ñaari équipe yi yëpp ñoo si gis seen bopp ci arbitre yi équipe yëpp ñoo si gis seen arbitre mais arbitre yi war nañu mën a respecter tuuti quoi

voilà mu nekk réaction coach su AIC dëkkandoo dañuy déglu réaction court su AIC matt gi matt gi nga xam ne si dafa ñàkk sortiem bu njëkk ñëwaat daal di nul mat deuxième match avec le coach euh, Sidi Martar donc j'appelle SMS. SMS donc pour votre deuxième sortie euh, face bien sûr à l'ASC de Kendo. Donc vous vous partagez les points. Alors quel est ton sentiment par rapport maintenant donc à la prestation de tes joueurs et carrément donc euh, à, par rapport au, match dans l'ensemble Je dirais un sentiment de frustration et de, de, bon, je sais pas comment, comment, comment m'exprimer, de satisfaction. Hein, parce que aussi, la, frustration, ça vient des faits de jeu que, l'arbitre n'a pas, pas bien sifflé comme il l'a fait avec euh, De en, début de, mi-temps. Euh, maintenant, euh, pour mon équipe, bon, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Euh, la première mi-temps a été un peu, un peu, un peu, un peu, un fameux, mais en deuxième mi-temps, ils se sont très bien comportés. Il y a eu beaucoup d'enseignements positifs que nous avons eu à observer et qui vont nous permettre de retravailler davantage pour pouvoir revenir peut-être en force. Certes, ce match-ci, on voudrait bien euh, le gagner, mais bon, Dieu en a décidé autrement. On ne fait que féliciter nos joueurs sur le comportement qu'ils ont eu à montrer sur le terrain. Ils se sont très bien combattus pour pouvoir espérer ces trois points, mais bon, les lois du foot en ont décidé autrement. Et on voit ton, ton, banc se plaindre, tes joueurs, exactement tout ça, exact, qu'est-ce qui justifie cela ah, C'est normal, c'est normal, c'est des faits de jeu, parce que aussi ils réclament un pénalty que seul l'arbitre peut juger. Mais nous, on ne peut que se fier sur ce que l'arbitre a, décidé. Maintenant, on va essayer de travailler et d'essayer de, parler avec nos gosses pour pouvoir rentrer, après aussi tirer les, enseignements et demander aussi euh, à la zone que ces matchs-là, c'est des matchs de classement, c'est des matchs de classement entre nous et, de Il fallait peut-être euh, laisser des, officiers qui sont capables de, tenir ce genre de match, mais laisser ce pénalty-là, je ne veux pas me prendre sur les arbitres, mais laisser ce pénalty-là et tirer euh, le, le pénalty de, de Bon ça me paraît un peu bizarre. Alors, une autre question SMS, euh, c'est juste que donc, euh, voilà, vous venez de terminer avec l'ACD Kondo, il vous reste Dego et Gapo, ça ne va pas compliquer donc la chose Non, nous, nous n'avons peur de personne. Mhm. Même Dego, ils savent que nous n'avons peur de personne. Nous allons travailler avec notre équipe et revenir en force. Inch'Allah, quand on verra euh, Dego mardi prochain, vous allez voir un autre visage de, notre ASC et c'est ce, ce, qui fait aussi euh, la folie de Matigui. Très bien. Alors en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour euh, la prochaine fois. Merci, merci. merci coach. Ah, koy yemale foofu lekk loolu moo jotoon euh, xew ci journée bi le 30 doxoon ci diggante AIC Jàppo AIC Guy gi AIC Jàppo daa di koy daan benn bal ci dara diggante AIC dëkkandoo AIC matt gi ndam demul ndam dikkul AIC dëkkandoo ak euh, matt gi kenn dugalul sa morom dara donc mu nekkoon euh, match yi jotoon a am tey ca stade docteur Issa Mbaye Samb di leen fàttali ne dañuy wëy ànd ak yéen ak programme CNP bi nation championnat national populaire bi ca kebemer euh, stade docteur Issa Mbaye Samb euh, ëllëg ASC jambar dina dajé ak Manko bu 18h joté le 31 waye tamit deuxième match bi bu 20h joté dina doon ASC ben Tali ak ASC mu nek première sortie Aïsé Benetali, Tali waye deuxième sortie Aïsé Darussalam. darussalam war a dox ci diggante deuxième sortie première match bi deuxième sortie ASC Jàmbaar ak deuxième sortie ASC Manko ci fàttali nag ASC Jàmbaar moo gañe woon matcham bu njëkk Why tamit Ayse Manko dafa ñakoon matcham bu njëkk ASC daru salam dafa gagné won matcham bu ñeuk mom tamit waaye ASC ben Tali bi moy matcham bu ñeuk ci compétition bi. et voilà mi ngi nonu donc euh, di leen jox dig daje ëlëk loolu mo wara xew ci stade docteur Issa Mbaye Samb donc restez branchés restez connectés sur Kébémer TV pour ne rien manquer des navétanes avec Actu Navetan. vivez chaque instant chaque émotion et chaque but comme si vous y étiez. Donc, mi de Kebemer TV, la scène qui vous rapproche de votre passion. Et merci de votre fidélité.